beneen bi ci tegu nag ñu ne waaw loolu moom leer na waaw yéen tijaan yi seen malaanam wasifa mi fu ngeen ko teg lal am wër ko di yuuxu fu ngeen ko teg ba ma ko waajee waxee ma ne ko malaanam tijaan yee la neexut mais tijaan yee mu jëlal malaan malaan yi ñu lal dafa bari di ma ne ko yaa ngi nii léegi-léeg sa soxna sañse soo la yëree sa xol sedd nga ne ko lalal naa la loo wax ci malaan mooma ma ne ko léeg-léeg tamit jëkkër solu yëre ya rafet soxna sa ne ko nijaay lalal naa la muy ñaar ñetteel ba nag ma ne ko yaa ngi nii su sa soxna defaroon añ bi ba pare ngi teg kuddu yi bala ñoo lekk looy wax lal leen nàpp bi ngir ceeb lal malaan ngir ceeb jàllal bi ko lal maanaam lal malaan ngir ceeb bu guddi jotee nga lal malaan ngir soos bi ka ca gën ay malaan nag mooy ndékki am na ñoo xam ne taabul lañ ko daajal ponkalam taabul koñ ba koñ lal ca ponkalam malaan teg ca ay kaas ngir ndékki rek te yow waxoo ca malaan mooma dara ma ne ko ñeenteeli malaan mi nag mbooleem buuri àdduna bi nañoo am tapis rouge bu ñu amee gan guñ fonk ca kaw malaan mo pous ak dalam ya ba yegg ci bir pale waaw bismillah cheikh Aku bismillah ah mbokk ñu ñu ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu defal lu sel, te jëmmam ji lépp luñ ci wax mu nekk luy jëriñ doomu aadama ndax loolu mooy objectif bi loolu moom mooy jubluwaay bi jubluwaay bi leen lu dindi nit ñi ci réer gu metti gi nga xam ni dañ see nuuru réer yàlla jaaral mu jaaree ci ay nit bopp yoo xam ni dañuy dañ leen a fas yéene nuural ci géeju réer googu ndax loolu moom mooy defar seeni intérêt doxal seeni société mooy doxal seeni business ñoom nag seen business yooyu ak seen entreprise yooyu bugguñu ko ñàkk moo tax lépp lu ñu mën a def rek ba dox ci loolu ci di réeral nit ñi ak di leen sànq dañ koy def ñoom loolu seen rôle la ñoom te rôle boobu ñoom fas yéene wuñ koo wàcc fas yéene wuñ koo bàyyi tànk nag ñoom duñu dañ ci di réeral nit ñi ñun tamit duñu deñ ci di leeral dëgg waaw c'est automatique tant am na ay nit yu taxaw di réeral nit ñi te làqatuwuñu nëbbatuwuñ ci te dañ koy def ak fierté ñun tamit amul lu ñuy ragal ci leeral dëgg ci dàq neen yooy te duñ ci làqatu te duñ ci nëbbatu tamit voilà ku mel ni man dama naan fàng dàng ñëpp di ko gis wala parce que ku ragalul xotti war may yàlla ak yonente bi ragalu ma su tontu ma ne dàng nga yow laay tontu ku rusul yàlla ba taxaw ne yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne mu romb ko koo xam ne moom rusul wax loolu koo xam ne ragalul wax loolu koo xam ne jommul wax loolu ma nit du ma ragal du ma jomm su may tontu ma ne ko yow laay tontu ma wax ak yow waaw ku ragawul ne sëriñam moo nekkaat yonente bi yonente ba xeesoon màkk sëriñam la ku ko ragalu la wax man tamit ragaluma taxaw ne li nga wax du dëgg ku ragalul taxaw ni yonente bi salaa nee na benn per benn yudu salaatul fatih boo ko jàngee day tolloo nga wàcc alquran six fois man tamit lu may rus ak lu may hésité wala lu may ragal ci tontu la waaw comme mbir mi muy noonu mbir mi lu automatique tey nag dañu ñëw ci benn thème muy wasifa ak tijaaniya wazifa bi nga xam ne tijaan yi dañ koy amal am ci ay pas-pas yuñ ci saxal ndax wazifa bi nee na ñooy astaghfirullah da ngay def astaghfirullah téeméeri yoon wala juróom fukki yoon soo pare nga jàng salaatul fatiha juróom fukki yoon sopare pare nga nu tudati eh, nga tek ci la ilaha illallah 100 fois bo pare nga jang johratul kamal nee ñu nak wazifa bobu dafa mbalan bu ñi lal mbalan bi soko lalé lalee bi day tew ci mbalan bi ak jibril ak bakar ak umar comme ñoom lii dañ koy wax ñu bind ko ci seeni téere di ko wax bind ko seen téere di ko doxee pare di ko saxal nag fu ne di ko yuuxu fune ne comme borom rimaax xisbu rahim Umar Fuuti loolu saxal na ko naam saxal na lu mel kom nag yone dafa laaj firnde bu fekkee da a dem ba tudd yonente bi yonente bi yow kese moomoo ko yonente bi boo ko waxee man dama ciy gis sama bopp Yunus mii da ciy gis boppam ñaame njaay da ciy gis boppam hmm. euh, Babacar Senghor da ciy gis boppam keneen ak keneen da ciy gis boppam parce que bi yonente ñëpp la ñun ñëpp ko bokk comme munoo wax dara ci yonente bi ba pare nga ne wax ci bi yéen concerné wu leen man la concerné déedéet yow munoo fekk benn famille benn set bi wax ci maamam beneen sët bi bëgg a tontu ñu ne ko déedéet man sama maam laa wax lu sooyoon déedéet yéen ko bokk parce que yéen a ko bokk <laughs> maam boobu seen maam la yéen ñëpp yéen ko bokk comme munoo wax ci yonante bu pare ne li may wax ci yonante bi la ma neex yéen yéen ñeneen ñi nga xam ne yéen man yéen laa bokkal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yéen amoo leen droit wax ci yéen da ngeen a war a noppi c'est-à-dire ah, loolu fan xel sax xel bu sell sax da ko xel bu sel sax da ko nangul xel bu sel ci boppam nangul lolu comme dal luñu soxla moy preuve ci salatul ci wazifa bi nga xamni ne nee ngeen oy yena wax de comme borom rima ak ñeneen yera wax min waxuñu ngeen wazifa bi mbalam bi buñ ko lalé ak al intisar wajid intisar ci ko xamne day inkaar tariqati jan mu bindu momit ab terem Mahamadul Xaafis Tijaani saxal ci loolu ne mbalaanu wasifa boobu dee Jibril da ciy teew ak yonente bi ak Aboubacar ak Umar lu ñu soxla mooy preuve ci loolu preuve yu leer nañ ñu luy wone loolu te balaa boobu dama leen tegal ñaari comédien d'abord ngeen déglu ñaari comédien yi benn comédien muy tudd Modou Fall beneen comédien bi muy tudd Adi Niass ci layal bu ñuy layal mbalaan bi mbalaan bi <clears throat> léegi ci ku ñuy njëkkee ban comédien la ñuy njëkkee na njëkkee ci Adi Niass parce que Adi Niass moom lu wax moom vraiment dañuy dañuy déglu Adi Niass ñu ànd déglu ko ñun ñëpp. njëkkal si njëkkal si Adi Niass cheikh bi kon ko ñoom dañu jàpp ne Adi Niass moom. ሊቄች አድኛሳ በበያነ ብስሚላ አቻ ይደም አድኛስ fu ngeen ko lal am góor ko fu ngeen ko teg ko waajee waxee ma ne ko malaanam tijaan yee la neexut mais tijaan yee lal malaan malaani ñal dafa bari di ma ne ko yaa ngi nii léegi-léeg sa soxna sañse se li yëree sa xol sedd nga ne ko lalal naa la la wax ci malaan moom <laughs> ma ne ko léegi-léeg tamit jëkkër solu yére yi rafet soxna sa nekko ko nijaay lalal naa la muy ñaar ñetteel ba nag ma ne ko yaa ngi nii su sa soxna defaron añ bi ba pare ngi tek kuddu yi bala ñoo lek loy wax lal leen nap bi ngir ceeb lal malan ngir ciat jallal bi ko lal maanaam lal malaan ngir ciat bu guddi jotee nga lal malaan ngir sos bi ke ca gën ray malan nak moy ndekki amna ñoo lañ ko dajal ponkalam table koñ ba koñ lal ci ponkalam malan tek ci ay kaas ngir ndekki rek te waxo ci malan dara ma ne ko ñeenteeni malaat mi nag mbooleem buuri àdduna bi dañoo am tapis rouge bu amee gan guñ fonk ca kaw malaat moom xuus ak dàllam ya ba xegg ci biir palais waaw kon tapis rouge bu boo bëggee am jàmm gannaaw loolu lal malaan ni mu saxee xaqalan ni la saxee naqalan yonentoo njëkk a lal malaan mm-hmm. sallallahu alayhi lalal na buur bi ñu tuddee dexyatul kalabi yi malaanam muy làmbaayam mm-hmm. lalal na sayyidatuna Fatima malaan lalal na mbokkam nàmpaale ma Saymaaw ci benn xare bu ñu tuddee xaswatu ba nii hawaasin ba ñu dajee mu ne kii ñi jàppam tey jaam wallaahi maa moom ñoo bokkoon di nàmp ci xalimatu sax bako yonentou bi laaje firnde mu joxe argument yu leer dañi dafa jël làmbaayam nga lalal ko ko sayyiduna sayduna abubakar lalal na malaat malaaka yi dafa ya yonentoo wax ne su ngeen tuddu yalla rek ñi tew de leen baye xel bu demaan bay yalla da fay taal cuuraay lal malaat ne yeen sama and noori malaaka yi do ñu meena gis tok leen fi sayyiduna Ousmane mom mom mo dàq lal malaat ñep mom bu daan dem toilette rek ba dara su dul dugg rek mu jël lambayam nga lal ko ne yéen malaka yi may garde ci kira bi na tok leen fi xaar ma ba ma fak sama soxla do ra ñew ñu andat fa lal malaan yàgg na fi tanag lal malaanam tijaan yi do adi, adi no adi jugal na ca lalal na la diggante jëkkër ak jabar dem ca lalal naa la ceebu jën lalal naa la soos jóge foofu nag dem. <laughs> astafurlah. ñu dégluwaat donc kii faa ñu déglu faa ñu dégluwaat ko de vrai comédien. ko sax. waaw loolu moom leer waaw yéen tijaan yi seen malaana wasifa mi fu ngeen ko teg lal am góor bu di yuuxu ngeen ko teg bama ko waji waxe ma ne ko malaanam tijaan yee la neexut mais tijaan yee mu jëlal malaan malaan yi ñal dafa bari di ma ne ko yaa ngi nii léegi sa soxna sañse so li yere sa xol sedd nga ne ko lalal na la lo wax ci malan mom so bi mo mënu mako muñ quoi ma ne ko léegi-léegi tamit jëkkër solo yere yere rafet soxna sa ne ko nijaay lalal na la muy ñaar ñettel ba ya, nak mané ko yaangi ni su sa soxna añ bi ba pare ñi tek kuddu yi ba lañu lek loy wax lal leen nap bi ngir lal malaan ngir ciet jàllal bi ko lal manam lal malaan ngir ciet bu guddi goté nga lal malaan ngir sos bi ke ci gën ray malan nak moy ndekki amna ño xamné tabul lañ ko dajal ponkalam tabul koñ ba koñ lal ci ponkalam malan tek ci ay kaas ngir ndekki rek te yow waxoo ca malaan mooma dara ma ne ko ñeenteeli malaan mi nag mbooleem buuri àdduna bi dañoo am tapis rouge bu amee gan buñ fonk ca kaw malaan moom ruus ak dàllamee ba egg ca biir palet waaw kon tapi rouge buur yi comme waxoo ca dara baxil tapis balaa boo bëggee am jàpp gannaaw loolu lal malaan ni mu saxee xaqalan ni la saxee naqalan yonantoo njëkk a lal malaan fii moom day sos fii moom fii moom sallallahu alayhi wa sallam lalal na buur bi ñu tuddee dexyatul kalabi yi malaanam muy làmbaayam bu dexyatu du buur sax lalal na sayyidatuna Fatima malaan lalal na mbokkam nàmpaale ma saymaawu ci benn xare bu ñu tuddee xaswatu ba nii hawaasin ba ñu dajee mu ne kii de ñi jàpp ma tey jaam wallaahi maag moom ñoo bokkoon di ci ca xalimatu sax bako yonentou bi laaje firnde mu joxe argument yu leer nani dafa jël làmbaayam nga lalal ko ko sayyiduna sayyiduna abubakar lalal na malaat malaaka yi dafa ya yonentoo wax ne su ngeen tuddu yàlla rek ñi tew de leen baye xel bu demaan bay tuddu yalla da fay taal cuuraay lal malaat ne yeen sama and noori malaaka yi do ma leen gis tok leen fi sayyiduna sayduna mom mom mo moo lal malaat ñep mom bu daan def toilette rek ba dar bi sunu dugg rek mu jël làmbaayam nga lal ko ne yéen malaka yi may kabe di kiraat bi nag tok len fi xaar ma ba ma fak sama soxla door a ñëw ñu andat kon lal malaan yàgg na fi tan ak lal malaanam tidian yi ok Mr Ali de ngeen aadi no adi no do fod watch watch ba ba vraiment gis nga euh, lay gis nga boo fasee ba pare doog a wuti lay ñii rek lay demee ahlu sunna lu la wuteeg suufiya ahlu sunna dañuy am dalil ba pare doog a fas suufi nag bi ay day fas ba noppi di dàqanteeg dalil nag di doo dàq ak dalil yi loolu moo tax muy wax waxu dof yi waxu xeewu yi xam nga ni boo demee ba lalu lalu mbalaanu wasifa nga koy tekk ñooy laaj dalil nga ay xawma soxna si bu sañsee jëkkëram ne lalal naa la xam nga ko dem ba ci étape boobu mooy kii vraiment ñàkk na dalil mooy kii ñàkk na lu mu teg maanaam ñàkk na lu mu teg ci loxo bi maanaam ñàkk na lu mu lu mu lu lu mu layee ñàkk na ay argument jóge fa dem ci lal booy booy togg soos lal napp bi ngay lal peut-être booy ndékki jóge fa dem ci meer jaaykatu ndékki ne <laughs> mbalaan ba ñuy lal <laughs> ok yooyu moom du ma ci wax parce que yooyu moom ñëpp xam ngeen yu suufee la waaye dafay tudd ay mbir na yonente bi da koo def nee na loolu da koy layalee lal mbalaan ba mu tudd ay loo xamante ni moom moo ko créé saxul warul demeewul noonu mu ne yonente bi daa yonente bi daa lalal mbalaan dixetul kal bi ab buur dixe du nekk woon sax buur loolu amul lu gën a wóor mooy dixe benn saxaaba la ci saxaaba yi léeg bu daan ñëw sax jëmm jibril lay jël moom dixee bu daan ñëw day jël mooy saxaaba bi nga xamante ni jibril da daan jël jëmmam buy ñëw ci moom nee na yonente bi lalal na mbalaan Fatima du dëgg yonente bi xamu woon ay lal mbalaan ay lalal naa la loolu yonente bi xamu ko woon loolu ay affaire de sénégalais la affaire de sénégalais yi la bëgg jël ay affaire de xew yi ay affaire de taaxuraan sénégalais yi la bëgg a jël dem askanlee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente salaa sallam jamono yooyu amul ay lalal naa la jël ay lal ne lalal naa la loolu du dëgg aadi ñas loolu yaa ko créé loolu mënoo indi fan la nekk ban xadis boo xam ne dafa ne lal lalal naa la comme ñun Sénégal lu ñu waxee lalal naa la jël benn rido wala benn morso lal ko loolu amul du dëgg Kanta na ni ku muy jox na ko mantoowam jox na ko mantoowam mantoowam la ko jox mais nekkul lu lal ay mbalaan comme Sénégal naa lalal naa la ak nangam nangam ñaareel bi mooy Adi Niass bu fekkee <laughs> comme di ko waxee lalal naa la boobu la. est lalal naa la jëkkër ne borom këram lalal naa la te fasu ci dara fasu ci teggu ci bedd jaamu yalla teggu ci pas-pas est-ce que loolu jote naag mbalaanu wasifa nga xamni da ngeen koy lal di tuddu yalla gem ni jibril la ci tew ak abubakar ak umar ak usmaan bu dee loolu la kay comme lal yi ñuy lal ci lal yi sax pour nelaw jël ci dalil man sama dara bi malal sama kaw la di nelaw comme kay bobu tamit dalil la comme ko lepp luy lar rek lepp lu ñuy lar rek diko ci tek rek yow de nga lolu dalil la la ci lal bi ngay teud yow ha li moy ñak dalil xol sufi xol fuji ag xol adis fu mu ag xol fu mu ag rek ci ñak ay preuve waaw dem jëli lal napp yu ñuy lal napp yu jigéen ñi di lal ji bu ñuy togg añ bu ñu tegee añ yooyu lay jël preuve ne comme que loolu mën na nekk rek comme balaanu wasifa tijaat bi <laughs> mun na mun na nekk waaw parce que jigéen ñi <laughs> bu ñuy yàq añ dañ koy teg ci napp ay Adi Niass subhanallah Adi yéen da ngeen ne mbalaan mi da ngeen ko def jaamu yàlla tey amul kenn ku jël napp jigéen ñi napp yu ñuy tegee añ bu ñu tegee añ napp yu ñu ciy teg teg jël bool bi teg ko ci kaw fasu ju ci jaamu yàlla amuñ ci benn pas-pas xam nga pour lan pour ceeb bi bu tuuroo mu bañ a tuuru ci suuf nga xam ni da leen di yombalal bu ñu paree dañuy jël rek fob dajale lépp rek dem sotti ca mbalit ba ko amul benn pas-pas amul benn jaamu yàlla buñ ci tabax ku ne jëkkëram lalal naa la wala tabax ci kaw mais yéen mbalaanu wasifa bu weex bii dafa am jaamu yàlla bi ngeen fas ci kawam dangeen cee teg benn jaamu yàlla jaamu yàlla bi mooy lan mooy avant ngeen di wird avant ngeen di wasifa da ngeen koy lal charte la charte la ngeen ko ba nopp ci yéen ci ñenn ñu nuñ ko waxee dangeen ko koy tàllal ko ba mu tàllee ko ñaret te day weex tamit waaw mosuma gis wasifa boo xam ne lal bu ñuul la wala lal ba beneen la day weex ngeen ku ci digg ngeen wër ko ba pare day ànd ak ay zikr yoo xam ne zikr yu spécial la mooy astaghfirullah téeméer yoon wala juróom fukki yoon non astaghfirullah trente fois astaghfirullah trente fois euh, ak lan laa ilaha 100 fois, euh, Salatul Fatih 50 fois, euh, ak Jawhratul Kamal bi nga xamne mom ngeen di jang comme da ngeen ko jaglel ay wird mbalaan bi dafa and ak ay wird yu spécial ba pare ngeen fas ci nak ay pass pass yo xamne da ngeen ko jaglel yu spécial moy fep fo len di wirde fep fo fo len di wazifa Abu Bakar day tok umar usman ali ak Jibril ñu ne leen loolu nag indil leen ñu bi ndax lu tol noonu lu tol noonu ci yiw loo xam ne soo koy def yonent bi day teew Aboubacar Umar loolu dañ koo soxla preuve am ci diine indi leen ñu loolu fa ko yàlla saxalee ci alquran indil leen loolu yonente bi fan la ko saxale indil leen ci saxaaba yi ginnaaw ba yonente faato faatoo Aboubacar Umar waa usmaan wala Ali wax leen ma ñoom wala ñu topp ci ñoom saxaaba yi ba ñu faatoo ñoom wasifa nañ wax leen ba Xasan ak Xuseen mus nañ wasifa lal mbalaan bu weex ne mbalaan bii kat Aboubacar da ciy teew umar usman ak Jibril indil lañu preuve loolu loolu fan la dekk wallahi do ko gis wasifa mu ngi ñëw 12 12e siècle douzième siècle ba ci yonent la salaam jógee trois premiers siècles kenn xamul wasifa kenn defu ko kenn xamu ko trois premiers siècles yi kenn wasifawul kenn xamu ko kenn defu ko cinquième siècle kenn xamu ko ba ci sixième siècle islam kenn xamu ko septième siècle islam kenn wasifawul huitième siècle islam kenn wasifawul neuvième siècle islam kenn wasifawul dixième siècle defuñu ko onzième siècle ba douzième ngeen ko créé te bi ngeen ko créé nee ngeen yonente bi day toog da ciy teew ak jibril abu bakar ak umar du lii ngeen wax lii ana preuve ci alquran sunna ya hari ñu lay laaj preuve nga naan ñu xawma bu sañsé soxna si bu sañsé rombu daagu jëkkër ji ne ko lalal naa la boy taaj boolu añ da ngay lal napp meer boy jaay ndekki day lal boy tëdd sa kaw lal da ngay lal darab adiñas loolay sa preuve nga jóge fa sosal yonente bi na bi lalal na lalal na diw lalal na diw Aboubacar lalal na malaaka yi c'est pas vrai loolu yow yaa ko sos yaa ko créé parce que xam nga ña ngay waxal jànguñu la wax ñu ne eskay nga créé ñaareel bi ci xel yaa haadi yaa haadi ñas ci xel ci xel yonente bi ñaata jàkka ñooy fa biir Sénégal wax leen ñu naka nayoon yonente bi salaa di teewee ci jàkk yépp wax leen ñi wax leen ñu naka la yonente bi salaa salaam di teewee ci mboolee bi jàkk yooyu yëpp loolu da ngeen da nga ko war expliqué yow loolu expliqué woo ko wax leen ñu la jibril di teewee di multiplier wu di teewoo di teew ci jàkk yooyu yëpp wax leen naka la abou bakar muy benn jëmm di teewee ci jàkk yooyu yëpp naka la umar di ben jëm momit di téwé ci mi jakk yoy yépp comme lii ci xel la ginaaw bi nga amé dalil li da wala ko indil ci xel ci xel ko ko dégen buñu lalé mbalaan bi mbalaan bu wéx bi saa yu wazifa yeen waxo len ben jakk da nga da saa yu wazifa buñu lalé mbalaan bu wéx bi mbalaan bu wéx bi da ngeen né parce que abou bakar mo ci top lo ngeen wax da ngeen parce que abou bakar da ci teew ak Umar ak yonente bi ak Jibril moo tax ngeen lalal leen lu weex loolu ñaata jàkk ñooy wasifa biir Sénégal ñaata jàkk ñooy wasifa biir Sénégal ndax yonente bi day multiplier wu teew ci jàkk yooyu yëpp ndax Jibril day multiplier wu teew ci jàkk yooyu yëpp ndax Umar day multiplier wu teew ci jàkk yooyu yëpp ndax usmaan day multiplier wu teew ci jàkk yooyu yëpp loolu indi leen ñu ci dalil léegi ñu dem ci beneen comédien moom nee na moom day layal yonente bi naka lay teewee fii teew fee teew fee beneen comédien